Sen Sport 221 dal leen ak jàmm ci xibaar yi tàggat yaram yi dañ leen di tënkal li firusani ci kayiti xibaar léegi xam nañu affiche demi-finalu Ligue des champions yi gannaaw jongante gi doxoon diggante Manchester City ak Olympique Lyonnais te ñii di waa Olympique Lyonnais dóor ñi nga xamante ñoo di Manchester City ñetti bal ci benn ñetti bal yi nga xamante ne ñu ngi jógee ci Cornet ak Moussa Dembélé ak benn bal bi nga xamante ne Manchester City am nañ ko te mu jógee ci Kevin De Bruyne 24e minute nga xamante ne moo di Cornet dugal li nga moo di bii bu njëkk tax ba ñi nga xamante ñoo di waa Olympique Lyonnais jiitu woon benn bal ci benn balaa Kevin De Bruyne di égaliser ci 69 bi waaye kii di Moussa Dembélé ñëw ci deuxième bi dugal ñaari bal ci 79 bi tax ba ñii di waa Olympique Lyonnais dóor ñi nga xamante ñoo di waa Manchester City bu Pep Guardiola ñetti bal ci benn tax ba ñu qualifié ci li nga xamante ne moo di demi-finale yi léegi xam nañu affiche demi-finale bi gannaaw qualification Paris Saint-Germain Red Bull Leipzig Bayern Munich léegi Olympique Lyonnais mooy ñeenteelu équipe bi nga xamante ne taxaw na ci demi-finale yi kon quart demi-finale Ligue des champions yi diggante France ak Allemagne lay doon gannaaw qualification Bayern Munich ak Red Bull Leipzig bu jógee foofu la ci Allemagne ñaari club yi jógee foofu la ci France mu di Olympique Lyonnais ak Paris Saint-Germain. programme demi-finale yi nii lay demee talaata bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee Paris saint a daje ak football waaye àllarba bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee Olympique Lyonnais war a daje ak football club bii di Bayern Munich ci ligue des champions yooyu la ñuy des ba tey ak ki nga xamante ne moo di Pep Guardiola ak Manchester City ñeent at mënuñoo jàll ci li nga xamante ne moo di quart de finale ligue des champions yi Manchester City ba fii ñuy waxee mënta fexe ba jàll ci quart de finale Ligue des Champions Manchester City comme ni ngeen ko xamee dépensé daanaka

mënuñoo romb benn yoon li nga xamante ne moo di quart de finale Ligue des champions yi gannaaw bi nga xamante ne dépensé nañ jege 750 millions gannaaw bi ñu jógee ci demi-finale wu Ligue des champions yi dañu jàll ci li nga xamante moo di transfert ak international sénégalais bii di Kalidou Koulibaly gannaaw bi nga xamante ne ñii di waa Manchester City jamono yi yëpp ñu ngi ko doon topp kii di xibaar yaa ngi xam ne ne déggoo am na ci seen diggante lu kii di Kalidou Koulibaly war na koo bu ñu sukkandikoo ci këyit xibaar bi di foot Mercato mu ngi xam le ne de léegi li gàllankoor transfert yi daal moo di njëg gi nga xamante ni moo war a génne kii di kalidu kulibali foofu la ca Napoli City nak bu ñu sukkandikoo ci këyit xibaar bi mu ngi xam ne ne yóbbu nañu njëg gu toll ci 63 millions d'euro plus 10 millions d'euro yi nga xamante ni bonus lay doon waaye Napoli daal ñu ngi laaj 70 millions d'euro plus 10 millions yi nga xamante ni bonus lay doon kalidu kulibali nak am contrat bi nga xamante ne mu ngi ko téye foofu la ci Napoli ba 2023 maanaam ñetti at daal dese na ko ci li nga xamante ne moo di contrat am ak football club boobale di Napoli. City nag buñ sukkandikoo ci këyiti xibar bi ba tey mu ngi xam ne ñi ngi concentré won ci li nga xamante moy moo Ligue des Champions li nak taxone na ba mënu ñu won accélérer li nga xamante moy moo transfert international sénégalais bi di Kalidou Koulibaly jamono yi nak tok nañu ñu ngi sentu ne semaine bi ñu dëkkmal dinañu def li nga xamante moy di complète signature ki di international sénégalais bi di Kalidou Koulibaly gannaaw bi nga xamante déggo amna ci walu salaire légui li dess dal moo di déggoo ci li nga xamante moy di jëk gi dox seen digënté wala 10 millions yi nga xamante moy dox digënté Napoli ak football club bi di Manchester City bu sukkandikoo ci kayiti xibaar bii di Foot Mercato. transfert la ñuy wéy ba tey foofu la ca moo di Karim Benzema nekk foofu la ca Real de Madrid ci Juventus yi ki nga xamante ne moo di Karim Benzema mu ca Juventus li Madrid ngir di xibaar yaa ngi xam ne Manchester United nekk ci Angleterre jamono ñu ngi dox ci ay mbiram ngir yóbbu ko foofule ca Angleterre ñii di waa United nag pare nañ ngir fay kii di Saúl Ñíguez salaire bu toll ci cent cinquante mille d'euros semaine bu nekk ñii di Manchester United pare nañu ngir fay ko ki nga xamante ne moo di international espagnol bii di Saúl Ñíguez bu fekkante ne daal kii di Saúl pare na ngir dem foofule ca Manchester United dinañ ko fay semaine bu nekk lu toll ci téeméer ak juróom fukki junni euro par semaine ba tey foofu la ci Juventus ki nga xamante ne moo di Paul Pogba këyit xibaar yaa ngi xam le ne André Pirlo nekk coach bu bees foofu la ci Juve pare na ngir jël ki nga xamante ne moo di Paul Pogba delloo ko ca Juventus pare nañu nag ngir joxe ki nga xamante moo di waaye ci kaw ñu nangu leen a jox ki nga xamante ne moo di Paul Pogba mu dem foofule ca Italie fi ñu jeexalee xibaar yi moo di afisu demi-finalu Europa League yi a tàmbali ni ki suba ci ngoon bu 19h jotee football club bi di Manchester United war a dajee ak ñi nga xamante ne ñoo di waa Séville Séville nekk foofu la ci Espagne ak Manchester United war a ubbi li nga xamante ne moo di demi-finale Europa League yi suba ci ngoon lay doon bu 19h jotee beneen demi-finale bi war a dox diggante Inter de Milan ak Shakhtar Donetsk ci altine ji lay doon bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee loolu mooy li firsondi woon ci kayiti xibaar ngir bañ dara rëcc leen ci xibaar yii di ñëw nag da ngeen di daal di abonné rek ci seen bii di Sen Sport the best sport